laay prési président fan si club bu Mbayang Loum tey la anniversaire am ma koy souhaité un joyeux anniversaire de passage. allahumma amiin mu dund mu wér mu gën a yokku yaa ngi Lamine moom da ngeen séddoo ndak Sénégal rek. ah non Sénégal moom Lamine bàyyi ma compal ko rek bàyyi ma compal ko si tuuti rek jël li. daa bëri dëkk de moom. foo wax mu ne dëkk jël li des yëpp Lamine daal lu dul loro loro rek loro daal mën nañu ko bàyyi loro. yow moom yaay borom fan. waaw man Sine ak Saalum. Sine Saalum Sine Saalum. tey borom leneen li nga xamante ne ni gis nañu ko tey ci journal bu suñu làmb bu kar mooy Balla Gaye numéro 2 le fils de Double Less la journal bi daal di indi indi ko nag ci anam ba nga xamante ne nii Boucar ay combat yi nga xamante ne bëri na ko gaaw lool ci carrière am digganteem ak Modou Lo digganteem ak Mohamed Ndao Tyson ak digganteem ak Balla Gaye numéro 2 wala Balla Gaye numéro 2 xaritam nii nag nataal bi Omar mu ngi nii di tuus di yëngal nga gis mu ma ci ginnaawam sol nag maanaam yére boo xamante ni dañ ko xaatim moo di stade Léopold Sédar Senghor waaye nag journal bi dafa ñëw si maanaam ñetti combat yi nga xamante ni tey maanaam ñoo gën a gaaw ci carrière am bi si njëkk mooy digganteem ak Modou Lo si 21 secondes bi si des digganteem ak Moustapha ak Mohamed Ndao Tyson 30 secondes beneen bi digganteem ak Baboy mi nga xamante ni tey maanaam xaritam la léegi doom day am si 42 secondes Omar. am na solo torop man li ma ci jaaxal Boucar mooy combat yi nga fi wax nii yëpp bu ci nekk rek moom Balla Gaye numéro 2 wax na adversaire am ci ñaata seconde la lay daal. waaw bu ci nekk digganteem ak Modou Lo boobu maanaam tëkkuwante bi bëri na kii féete Guédiawaye kii féete Parcelles ku si nekk di def ravage fii nga féete Omar ba yàlla boole leen ñu bëri seen premier combat boo xamante ni tey maanaam ñu bëri dañ yaakaaroon ne combat bu métti bu yàgg lay doon waaye combat bi ñëw si 21 Omar Balla Gaye de balayé nga xamante ni moo di Modou Lo ni ko journal bi rek mu nekk combat boo xamante ni tey ba tey maanaam tey làmb dañ koy waxtaane mu am solo torop ko maam ak Baboye arbitre bi dafa sifflé mu jaay ko stratégie arrière ba génn saako yi daal di bi mu ñëwaatee ne ni jëlu xale la. waaw daan ko jël bu gaaw Omar jël boo xamante ni tey daanee noonu Baboye parce que Baboye la mbaroo ñu ko doon woo rek jamono jooju amul lu mu daan tiit ci mbër parce gis nga ni daan def mbëri ñi mu jot a bëreel ku si mel ne yëg ne keneen ak keneen ku daan bëreel dala daan jox sa waaye nga gis ni ko Balla Gaye 2 exploit la bu Balla Gaye doo def foofu noonu Omar. comme ak ki nga xamante ne ni moom mooy idoolam bu bëggee làmb ginnaaw baayam kooku bokk na ci li tax mu bëgg làmb muy Mouhamed Ndao Tyson moom sax la nat journal bi def nataal combat boobu la jàpp Mouhamed Ndao Tyson daal di koy dóor gauche droite mu daw songu daal di koy dóor mbot moo xamante ne ba ñu jógee

ab blessure sonaloon ko mu toog def ay année balance am nekk ci écurie Fass moom Forza daal dinay génn ci réserve am ba pare nag tëkku mbër yi nga xamante ni ñoom la bëgg a bëreel ku ci mel ni Malick Niang Forza bëgg na bëri ak moom Yékini Junior Sa Thiès ak Garga

bon gisuma por xaw ma problème bi fan la quoi mais mbëri mbër ñu ngi année balance année balance yu dul jeex te teewul chaque jour ko si tàllal loxo mu ne la dama bëgg a bëre te ñoom ñëpp ay naataangoo lañu ay naataangoo lañu waaye dañuy moytuwante mu nekk loo xamante ne ni Boucar avancé wul làmb mais da koy tardeel parce que nag ñoom ñëpp ay xale lañu ay ndaw lañu bu ñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex te bu ñu tàkkalikoowul kenn du mën a xam kan mooy yéeg ak kan mooy des waaw lamb sax mu ngi avancé waaye ñoom kay ñoom ñoo dul avancé maanaam ñoom ñiy taamu wante di calcul di ko ah, koy waxee maanaam ñoom ñooy tardé mais lamb moom mu ngi dox parce que yaa ngi bëri ñi bëgg a bëri ni ma koy waxee rek tey moom Omar bu ñu tëgalee combat mu leer ma ne maa la mën dama jël avance bi bëri ko yow daal na dem xooli keneen kon yaakaar na ne taamu wante beeg tànn bi amu si amu si solo ñoom ñooy année blanche rek ñoom ñooy perte tey di di di gën a regresser rek booy si ginnaaw di ñëw di bëri di leen romb am na solo trop l'an 2000 tamit ginnaaw bi muy nekk ci ay jamono di daan di daanu nekk ci ay jafe-jafe parfois nga gis ko mu ñëw ci ak forme bu doy waar parfois mu ñëw du ci nekk moo tax journal bi daal di ci def nag moom benn seetlu bu am solo. moom tam depuis 2018 la gëj a bëri ba tey digganteem ak euh, Farouz depuis loolu ko waxee rek moom l'an 2000 bii tey. Euh, Garga Mbossé na ko waaye tey war na ko mën a may chance Forza mi daanoon ko war na ko mën a may chance yi bés yi moom ak combat ak Yékini Junior combat bu neex la bu jaadu la combat ak Modou Anta combat ak Moussa Ndoye dama juum combat ak euh, Amaneex combat ak Moussa loolu yëpp ay combat yu jaadu la yoo xamante ni tey moom l'an war na mën a bëreek ñoom parce que champion la moom tamit naa la mais ni ñu ko waxee rek mbëri daal boo bëggee dégg dëgg Omar dañuy moytuwante seen biir dañuy moytuwante seen biir te nekk na loo xamante ni day tardeel ay mbër waaye xale bi nga xamante ne moom mooy bébé garga di espoir boo xamante ne ni mi ngi ci écurie dóor dóoraat moom itamit def na sortem ci journal bi nag ba pare tëkku ay mbër yi nga xamante ne ñoom la bëgg a bëril ku ci mel ne Ndiaye Tine ak Pam Doy waaw moom bé moom bébé garga fi mu rek Ndiaye Tine daal pour bëril di rek si ak Pape Ndoye rakku bu Lac Rose mu mel ne nag moom Bébé Garga moom jamono ji maanaam yaram bi day xasan pour combat Omar. yaakaar naa ne lu mu ko wokkee rek lay wër waaye Omes Diagne nga xamante ne nii xàmmee nañu ko bu baax a baax a baax ci làmb journal bi daal dina sekk waxtaan bu yaatoo yaatoo yaatoo ak moom tax tax moom. ku waxtaan ak moom ci làmb bu kat di nga xam lu bëree bëri ci làmb ndax dafa xam làmb. Père Omès waaw nekk nekk nekk ko ko xam-xamam wàcc si màllu wàllum nekk directeur technique bu Dakar bu drapeau chef de amee moom nag li muy jàpp li muy xam daal mooy que ne maanaam huis clos bi moom mën nañu ko def huis clos parcelle mu mel ne daal maanaam dafa de telle mu am quelques amateurs yu ñëw seetaan si bu est bu aar bi nekkee vingt deux mille places au moins nga def euh, dix mille places yi ñëw ñu ñi ñu leen douze mille places yi des ñu bañ ko occupé loolu yëpp maanaam ay solution la yoo xamante ni bu ñu si waxtaanee yaakaar di xale boo xamante ne ni bu tuusee mu neex bu bëree mu neex xale bu saf xorom ci làmb combat ak ngeer nag ki ko décroché moom mooy Lay Ndiaye. mooy Lay Ndiaye mu mel rek la waxee rek maanaam làmb nga avancé gaa corona am na waaye promoteur yi ñu ngi def ay lay nekk diggante Lay Ndiaye ak ngeer bu saf Omar. yaakaar na dina nekk combat boo xamante ne ni combat solo la ci wàllu làmb waaye journal bu record daal di ñëw ak ñun Boucar ci écurie bu Lansar. cinq saison yi nga xamante ne nii génn ci écurie bi am na 69 victoires 45 défaites ak benn match nul ci 5 ans. Siteu et Lansar respire la forme loolu la ko journal bi xëy tiitale rek si xalima suñu grand suñu doyen Abou Ndour mu mel ne nag Lansar moom Omar yaakaar na depuis 2015 2016 ba 2019 2020 moom maanaam tey seeni combat bëri nañ lool lool lool lool waaye lu tolloog 115 combat la ñu am Omar lu tolloog nag 69 victoire am nañ ko benn match nul. loolu nag yaakaar naa ne maanaam bilan bu baax a baax a baax la. bilan bu baax la bu parfait la waaye dafa am ñoo xamante ne nii Boucar ñoom ñoom ñoo fa nekkoon démb mën nañu ko wax ku ci mel ni Nees ku ci mel ni Super Étoile ku ci mel ni Fëgala ku ci mel ni Tidiane Faye waaye gisatuñu leen nag ñoom mu mel ni dañoo jege retraite bi trop. waaw les ténors proches de la retraite loolu la journal bi xamle rek Fëgala bëri na woon na waaye daf si jële woon defet bokk moo ko gën a handicapé Super nga ko di tegal ay année balance te loolu yaakaar naa ne bokkul si li mbër si ta fa nekk jamono jii ak Quench yaakaar naa ne ñoo ñoo fa nekk Tidiane Faye tamit ñu ko jot ko gis lool lool lool lool waaye mu nekk loo xamante ni tey xëy na euh, lu doy daal si écrit waaye daal li leer ba mooy ko di écrit moom bu ndaw yi di bëri rek écrit baa ngi avancé Mhm. waaw kon daal ndaw yi daal moom ni ma ko waxee rek maanaam nañuy tout le temps dañuy miser si ndaw yi si espoir yi nga xamante ni tey bu ñu leen doolelee tey ñu mën a doone ay champion Omar. am na solo torop Boucar Ndour boo xoolee Siteu am na benn victoire ak ñaari défaite ci ñaari saison yi nga xamante ne nii wala ñaari saison balance yoo xamante ni tegle na ko mu nekk loo xamante ne nii itamit métti na lool ci 5 ans yi. waaw ci 5 ans yi benn victoire loolu nag nekk na boo xamante ni tey baaxul ci ci ci ci. Euh, ci espoir bu mel ni Siteu tey làmb am fu ko am fu ko làmb di xaar fu ko làmb di séntu yaakaar naa ne tey il doit redoubler d'effort vu mbooloo bu ko topp waaye vu tey maanaam yaakaar bi ñu ci am tey moom yaakaar bi ñuy am ci moom kon tey maanaam laaj na mu gën a góorgóorlu gën a jaayantewaat gën a respecté boppam gën a respecté làmb ji Omar. moo tax journal bi daal leen defaral li nga xamante ne moom mooy 60 pour cent de réussite ne ni waaw loolu moom maanaam tey pourcentage bu baax la boo xamante ni tànn na maanaam ay ay école de lutte ay écuries yu mag nekk nañ fi sax te amuñu pourcentage bu toll noonu ci cinq seen cinq yi kon daal Langsar euh, di ma koy nañ yokk cere doolu ñeex ni ma koy waxee rek le papa des tarkinda père Max ñu koy ñu la passage rek kon waaw na gën a redoubler d'effort moom tamit euh, jàmbaar la. en tout cas am na solo ndax Lansar fi toll nii moom moo gën a placé bu baax a baax a baax waa Rock énergie ñoom ñoo gën a placé bu baax a baax a baax waa école de lutte Balla Gaye waaye leneen li nga xamante ne nii gis nañu ko Boucar mooy combat yi nga xamante ne dañu koy faral di gis ak fusion bi nga xamante ni nii bëgg nañu ko diggante Fass ak Ndakaaru mu nekk fusion boo xamante ne nii bari nañu ci d'accord waaye bari na ñoo xamante ne d'accorduñ bari si waaye Omar li ni ma koy waxee rek tey rek boobu noonu pour man tey am na ay avantage côté mbër yi waaye côté côté écurie itam parce que ñaari écurie la yoo xamante ni tey mën naa ne tey cinq ans nga nii tey maanaam tey euh, euh, seen bilan mm-hmm. ñu am ay champion am ay ndaanan ndakaaru tey ba ba ba fa Yékini nekkatul ba tey ba fa Yékini Junior nekkatul ba tey ba fa Malick te gis nga Tonnerre euh, yi nga xamante tey ñëw jiitu su Dakar waaye tey gis nga jamono ji tey cinq derniers yi nga xamante tey pour ñu bokk ci 15 premières écuries. ay ndaare rek la ñuy waaw waaw pour ñu bokk ci 15 premières écuries problème la kon tey war nañ mën a fusionner boole seen doole boole seen xam-xam boole seen seen staff yi ngir maanaam relever waat le défi wala tamit ñu bëri seen biir parce que tey mën a ñëw tey lu war a moo tolloog 5 écuries nekk biir Ndakaaru te duñ bëri seen biir loolu yaakaar naa ne Omar pertement la. yaakaar naa ne écurie Ndakaaru ak écurie Fass moom benn yoon a bëre muy Gris Bordeaux ak Yaxya boo xamante ne nii sax nee nañu biir Ndakaaru waaye yaakaar naa ni leeral yi tamit tey loolu rek la woon. leeral yi Omar loolu la woon rek di ñaan jaamu si Sénégal rek parce que jaamu si la lépp xaj couvre-feu bi démb nag gis nga ni mu demee waaye daal ku sañ ta nangu kon nañ toog seen kër rek waaye en tout cas nekk na loo xamante tey maanaam tey euh, lu doy waar la parce que couvre-feu def nga ko defaat ko te teewul kaay di bëri ni kon maanaam tey war nga war beneen approche beneen système boo xamante ni bu ñu ko defee cas yi dinañu wàññeeku ñu régulier régulariser waat affaire yi respecté waat mesure barrière yi yokkaat masque yi donte nit ñi sax gëmatuñu feebar bi. mais maanaam nañ nañ nañ dëppoog rek ak li maanaam na mën nañ ne tey maanaam tey ordre la santé tey maanaam noonu la ñuy doxee tey respecté mesure barrière yi di takk masque fay foofu foo dem ñaa ngi takk masque di ko di ko di waaye nag dafa toll foo xamante ni tey maanaam nit ñi tey moom boo leen di gëmloo dara te li nga leen di gëmloo gis nga koy dund rek pour ñu gëm pour ñu gëmala loolu noonu day jafe waaye daal nañ gën a yaruwaat rek gën a respecté yëpp rek pour man manifestation yi jaru ko nañ trouver solution daal pour man moo gën yenn yi. am na solo trop ñu trouver solution waaye itamit ñu fexe convaincre sénégalais parce que nag koo wax rek mu ne la virus bi nekkul guddi rek lay dox. bëccëg bi rassemblement day am élèves yi dañuy jàngi ku ci nekk da dem doxi say activité bus yi dañu leen di surchargé ba mu fees dell yaakaar naa ne bu dee ay cas communautaire day am kon fa lay ëppee rawatina guddi gi nit ñi liggéey ba pare toog seen ay kër wala tamit ñenn ñi di di jënd seen dépense ci guddi gi nga tëj leen ci guddi gi te bëccëg bi nga bàyyi népp ñu libre tamit ay décision la yoo xamante ne boo koy jël da koy xoolaat bu baax a baax ni nga koy jëlee leeral yi yaakaar naa ne tey loolu rek la woon Boucar waaw leeral yi loolu la woon rek du nuyuwaat ñëpp rek di jaarewaat ñëpp bu ñu limee du ñu mos rek waaye ñu ngi ñaanaat jàmm si Sénégal rek ndax jàmm si la lépp xaj yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi Omar def ko ci àdduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp feebar bi jeex fi abadan daay man ba ñit ñi delluwaat seen sago waaye yëpp rek maanaam tey yàlla day fàttaliwaat boppam rek kon naal na ñit ñi gën a maanaam waakirluwaat ci yàlla rek te xam ne àdduna bi moom Omar yàggul yàggul te méttiwul leen jox dig daje ba suba ak jàmm